ba tax na ci yooyu la ne ci ci diggante yooyu la ñu ne waaw tabarkalla raam ci fer ci màgg ci tabarkalla sëñ Babacar fii Alaaji Abdou Kan fi Alaaji Seydou Nooru fii Xalifa Ñas fii ci diggante boobu lañu la ñu la tabarkalla la sama najaay ju baax ja Mouhamad Aliwul Lufata babba waaw ah. bi ma ganee àdduna ci ñetteelu fan la ma tagg ci way waaw yàlla xam na ko te moo daqoon sañse ci Sénégal yëpp gën ci dégg arab te mu nga dëkk gànnaar ci alaw yi yoon yi la bokk xaritu benn bakkanu alaji Mansour la xaritu benn bakkanu alaji Abdoulaye ma ma jékki-jékki rek xaw ma lu ma ci xiir ma tapaas ko te moom a ngénte waaw ma tapaas ko rek ndax daf ma daf ma daf ma daf ma provoqué ma fayu ñu continuer ko sëñ Babacar xëy ni na fi yam na fi yam ndax dama bañ dérive am ci ndax bu ci amé rek da fay dal di nek al muharabatu bil qalam te sa mam da fay bañ bugul al muharabatu bil qalam kon nak yamale len ko foofu waaw man ma def ba ci mujj yónnee ko jox ko mbay fay mu yóbbul ko waxaale ko ni ko sëñ Babacar ne nañ ci mettre un terme dafay bañ mu nekk al muharabatu bil qalam ndax Maodo daf ko tere waaw ndax bu bu ma wayee ci suba musiba ma way ko ca ngoon musiba waaw yónnee ko ko sëñ Babacar nag ne nañu arrêté ñu arrêté rek mu wëlbati kayit gi wëlbati kayit ni in rumta in rumta nadban shaaira mutawadian طلق الجبين سميد عن مفضالا فعليك بشيخ التجاني waaw waaye fekk na mu wax ma musiba mu day naña daal di jëfandikoo baatu wéy man wéy man xam nga maam du sekk bu ndar moo xewal wéy man wéy man waaw way man xanaa du dërëm waaw di xuloo way man xanaa du dërëm maam maam du sekk wallaay way man xanaa du dërëm waaw moom it mu jël way man xanaa du tijaan ibn al xalifati man lekk naa aqiqatahu ne ne lekk na ci sama ngénte fii saalifi zaman yi ma ni ko ndokk waaye tey du ngénte <laughs> wallaay ndeysaan xam nga diggante boobu boo ci raamee fer ci am na loo dootul yëg yàlla xam na ko moo tax mu ni in rumta nadban shaa'iran mutawaadia talqal jabini samayda am mirdala fa alayka bi cheikh tijani innahu jamaa almasaila la yaruddu suala waaye ndeysaan أمنعكم أمن أمنعكم تبارك الله كو خير انت من لا وهي دم خي تكاو العنب الله جاب دنيو نسين بابا كريك شاتي جان سمي تير دي جوه مكو منو كو منغو ديسان كريك تريستنا لون دخل الله جاب دوكان دف ما يقون ولايك dal kan di may wutal valise préparé ma ak ñu dem Dakar bobu la demee Dakar ñu ni bërki dem la fa dem ndax dama mer <laughs> ils sont dingues man Allah dem Dakar jóge fa dellu kaw la xati encore toog fa tuuti mu daanu feebar ju dem Guinguinéo néew mi ne Guinguinéo booba Mathurin Diaw a fa nekk comme médecin ñu dem fa moo daan faj Alaaji Abdu xaritam la wala rem la tudde na ko doom Abdou mu ñuy jàng alquran di ci rax yeneen